baax na ma yàlla baal maa ngi bëgg dugg ci foo xam ne bu dugguwaay ba yombit ku bàyyi sa xel ca génn ga dina tax sa dugg doo ca sawar ndax ñaare dugg day bari lu mu làmboo bëgg a génn walla sax su bëgg a génn amul jot a génn am jot génn moom bu amee bëgg a génn ak ba génn foog borom jéem a génn jamono ba muy dugg nag yombug duggam su taxee bàyyiwul xelam ci waxtu génnam mën na ko indil fitna dama doon bëgg a wax ne ñu ngi mel ni ñu ngi tardi waaye ku xamul fu sa avance nekk xama nooy xamee fu sa tarde fu sa retard ne waaye daal mel na ni temps baa ngi lekku ndax passé nañu midi te tey lañu waxoon kon suba gi dee na ngontale ci des ngont laa ngi dox tarap tarap tarap mu ngi mel ni montre yaa ngi camparanteeg juróomi waxtu juróomi waxtu mooy tàkkusaan kon nag nu jéem xat-xatal li ñu waxtaanoon ci kayit yi wax ko ci rajo bi ne moom la ñuy def tey ba fu ko yàlla yemale yàlla na ko yàlla nangu dara tuutul lu dul yàlla tuutal dala rëyul lu dul lu mu rëyal lu mu tuutal dootul rëy mukk ak pexe moo mën a def lu mu xës rëyal it dootul mën a tuuti mukk ak pexe moo mën a def kon yàlla na ko sakkanal te rëyalal nu ko ah, àll bu lëndëm bu fees dell ak rab yuy gàññi ak pax yi ndëgg sërëx ak pakkatal yoo xam ne xeer yu ñaw la ñu di ko xuus nag te si euh, gàttul benn bopp lii barul dis kenn la tànki neen lañ koy doxe it di wuy ji njàccaar lu bari sañ-sañ te am doole day jaadu jéem a visité sunu bopp waxuma sax déglunte waxuma seetante waaye ku ne seet sa bopp déglu sa bopp ba xam fii taxuma mirina waxuma ripolchikama waxuma cap weer sénégal sax lu taxul may wax àddina laa wax gaa yi ndax dañ fiy continuer continuellement wala wér na ne dinañ fi war a jóg dinañ fi war a jóg yaa di preuve an sa papa papaam lox gu guddale woon mooy liiñ liiñ ba dale fa aadama nekkoon cay at ak cay place ki liee ba fii toog tey ci at mii ci place bii liiñ bu guddale neel baabu ndoy mu ak si ci biir moomam mu mel ni maa ngi wax léegi sax ci Majib bi mu ñëwee tamay waxtaan tuuti ba borooxaale mbiri jigéen ñi parce que car fatuwaar fakala ahsan xaaliqina yàlla na yàlla dolli sutura yiy sànke dafa bari yiy sànke amoon na waaye dafa néewoon benn fànn la woon benn façon la woon moo doon yàlla amul dekkal du dëgg noonu rek la dayoon nga di yéefar mbaa nga di jullit looloo xewoon mais gi mais yiy sànk te di ci biir diine ji moo jata moo jara wax ndax ñi ngemb te bëgg jariñu jëriñu ëllëg ñu di leen fefeti ñuy jaar foo xam ne kenn dafa jaar jariñu kooku ñi tëdd dina sax leen tane dana jàmm bu leen noflaay dama waxoon sànq ne amul benn benn xel ak benn xalaat bu war a mën a gën a jub mbaa mu gën a dëggu xalaatu rasulullah xalaat boo xam ne sama yow yi jëla xalaat boo xam ne wëhyu la خلاد بو خامني القاء من ملك خلاد بو خامني بي آه من وراء اجابين دي دي دي دي, دي كلمات بن خلاد غنو كومونيك ديستور دي آه آه آه آه كونستيتيشن القران بي بروم ريديجي ne ko ne maa koy gardel suma bopp inna nazalna alquran inna idan inna nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun constitu constitution yi boo xam ne rédigé moomantuwu leen da leen pire pour toujours du ko fi am ay fan jóge fi keneen ñëw dindi li kale defoon defaat yeneen am kañ lay sax suñ defee code de la famille code de famille xam wala amul laa dudu am na dala waaw am ci baat yu rang ak ay article yi alquran yi nga xam ne du soppeku du changé ki ko def xam na li amagul Eh, eh, Amadou eh, li nga fekk bariwul li nga gis bariwul fi nga dem bariwul li nga xam bariwul li nga am bariwul li nga fi yàgg du bari noo mën a sensé noo mën a saxale man wóor na ma ne loo gudd gudd tànk fi nga dem wala ëpp fi nga dem loo yaa yaa wërsëg yi nga moomu la ëpp yi nga moom loo bari bari xam-xam li nga xamagula ëpp li nga xam te nag maag yow démb lañ fi ñëw bu ginnaaw la liggéey ñu dema ah, bàyyil sa xel ci loolu nag soo fi bëggee dogal loo xam ne danga nga mu romba la romba ma romba sa kër romba kër kii pour war sax te nga fekkoon ki fi jëkk te di fi mujj te xam yépp tëral dem ku la topp yaak moom fa ngeen di teere woy sama ndey dina fi jib bilaahi am na fu ma jaar sànq tuuti parce que bari na torop torop torop léegi ay jigéen yoo xam ne seen pas-pas mooy seen jëkkër dootu leen denc koku du yoon wu baax de astafla du baaxul ci lislaam de xëy na baax na ci yeneen diina mais baaxul ci sunu bos bii de xam nga lu ne bi wax أديش ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وعي يوحى أديش فك لن يجرم نيار داف كام يندل دكلو أم يمتخرم تواتر موم كان خل كل خلم كان دمول شي جيم شي دار صحيح نون متفق نون موقوف نون مرقوم نون شعي نون ابي هريره wax na ne Moustapha ne na baal ma baal leen ma jigéen ñi dañuy waxtaan ci lislaam ne na laa xayra fi imraatin tajuul yiw du mën a ne mukk ci jigéen ju gudd tànk yonent bi wax du doon yiwu tey du doon yiwu ëllëg rawatina nag diina laa xayra fi mraatin tajuul wala fi wala fi rajulin lam yajul dañu safaanoo safaanoo bu sax dàkk ngeen baal ma suñ suñu àndee sax ba dem ba dem ba dem bay war a sabab lu takkandeer mu tudda doom bu ñu waree dem bay sakkandeer fi yàlla jaare jaarale ne fi la ñuy war a jaar pour sabab lu takkandeer parce que bokk na ci ñàkk teggin di ñaan yàlla doom te takku la jabar yàlla nee na ñàkk teggin am na loo bëgg ma defal la ko mooy tànqam la ci lu may tere soo bëggee am doom tànku la jabar <laughs> yoon wi mu tëral ne bu ñu bëggee kër ga yokku ab barmool joor fee génn waxul ne ngeen bokk taxaw waxul ngeen bokk jom kon waxul ngeen bokk rukon waxul ngeen bokk sujjóot du sall séparation bi dafa yàgg te sax mu ne su ko sax buñ ko bëggee ci kër gi gune war a judd kii li man yasaaw wa yaabu li man yasaaw ak yi daab yi jëhum dhukaraanan wa inaasa wa yaxalu man yasaaw aqima innahu hakiimun aliim subhaanahu wa taala maay may doom ju góor jëkkër ju ma neex ca jabar ju ma neex mbaa jabaram ya mu neex du paase góor góor góor góor yore ma dugg ci kërit it fekk fa jëkkër may koy jigéen ci jabaram jenn mbaa ñaar mbaa ñett ju ma neex jigéen jigéen jigéen du mën am góor du muus mukk ba am góor lu mu góor góorlu góor góorlu su ëmbee ma def ko góor muy góor su ëmbee ma def ko jigéen muy jigéen léeg ma dugg ci kër nag jaxaseel borom bu ngéntee góor ngénte jigéen ngénte góor ngénte jigéen léeg ma dem ci kër nag tànqam lu ngént dafa jib waaw alquran yahabu liman yasaaw waxal maay may jëkkër ju ma neex mbaa góor gu ma neex ki jabaram ju ma neex ay doom yu jigéen rek waaye itam nag wa yahabu liman yasaw góor yi rek góor rek aw yuzawijuhum wala ma jaxaseel ko ko góor ak jigéen te léeg-léeg nag wa yajalu man yasaw ah bay ma mais léeg am ko ci dul jaar su guddiwul woon ma farafànceel la euh, ci yàlla euh, lu mu la teg dinañ ci gudd sax tey tey tey dinañu gudd torop ci nangu dogal yàlla ndax fitna ji yépp coono bi yépp ñeññi gi yépp xulo bi yépp tongante bi yépp tërunte bi yépp ñàkk nangu dogal bi rek képp ayu teew ak ëllëg gàcceeg naqawu àddina mitit ak dumay alaxira yi yépp li koy jural jaam bañ nangu dogalu borom dinaa may ku ma neex góor ku ma neex jigéen ku ma neex góor ak jigéen ku ma neex bañ koo jox dara ñaata façon la góor képp jigéen képp góor ak jigéen dara yëngu na du ñeent yooyu bu ci ne dal na yonent ab yonent te ba doomu aadama mun la ëpp yonent lu ci ne dal na yonent am na yonent boo xam ne doom yu jigéen rek la amul amul benn bu góor am ñu am góor rek amuñu benn bu jigéen am ñu am góor ak jigéen am ñu ci jaarul kon ñeenti façon ngi mat na yëg nga ne góor gu ñu waxul amul doom ju góor loot jigéen rek la am kon bu la ko yàlla defee looy mer ku la ëpp dara jaam jaar na fa xam nga maam Ibrahima amul benn doom bu góor jigéen góor rek kon buñ la ko defee looy jooy Ibrahima la ëpp wàccuwaay aw isa bi juhum ku neexee mu jaxaseel la nag ni rasulullah ñett ñu góor ñeent ñu jigéen wayeejël nag ma sa saa aqima su ko neexee nag nga bañ cee faf jaar ni yax yaak inche ku ci ne yónnante nga amula doom mais eh, su fekkee dem nañu bay sabab sabablu ku war a yokk ci kër gi mu tudd doom borom bi fi mu wax ne fii la jëkkër di jaar ak jabar ba mu fekk si leen jox leen doom du du santu leen ñu dem ñu taxaw santu leen ñu rukon santu leen ñu sujjoot santu leen ñu toog dafa wax ñu tëdd am déet bi mu waxee ñu tëdd it dafa wax ñu tëdd daan dafa wax ku war a jiitu ci suuf ak ku war a ci kaw pour ñu sabab lu doom waaye kii yàgg nañ koo not waaye kii ne na féete suuf pour doom am kii bu bëggee fittir ci kaw ba ne dafaa ñëw ci kaw ki koy bëgg a dimbale xaw ma kan la ki ki ko ki koy ki koy dimbale ki koy dimbale ba mu arrivé si eh, xaw ma kan bismillah xam nga nit ñi ndeysaan ñu baax lañu dañ leen di tromper sooy xool téere yi di si gi di xool nit ñi su xool bi day tàng su fekkee yàlla dugal na ci yow tuuti yërmande nag da nga ñàkk sax ay nelaw te say lal du màtte <laughs> xam nga lal bu màttewul borom fandewul dañewul tent nelaw cheikh dara gën ko nit mel ni cheikh u gay ñëpp dañu féete alaaji abdu asis ak moromam yëpp l'islam bi leen tax do pa jaageen euh, sekk jëgeen jëf sow sàll waa kañ toog leen bu baax toog leen déju bu baax seen xam naa ne ko amoon kayit gu dara newul te nga nangu ko bind man conférence bi li ma gënaloon sax ñu def koy téere ku jëkk ku jëkk ku jëkk ci nit nit nit nit biñ leen di bi borom bi borom bi dogoo ci def nit kan la jëkk defar déet bul di tudd tur ne ma góor la wala jigéen waaw kañ waaw kañ loolu laa bëgg kañ góor la jëkk defar ci alimul xay bi maam yàlla ko bari xam-xam di lay ko ko gàgganti juum bi mu koy defar kat yëg na ne nar na jigen waye mu ngi ko tege fële defar góor gu ñuy wax sa góor gu baax ki nga waxon legi aadama wax nag ni mu ko defee rek nga ko bëggee tuumaal ku ñu bëgg a tuumaal nga wax ba ñu naree wax na yàlla jur inche ala nabiyina wa alayhi salaatu wasalaam inche nit na laahi yàlla dana déedéet inche du sama doom fa masali inche inda laahi xenda jooju di inde sarfiya di inde makaniya indal xususiya la fama fama sali kam fama sali aadama xeeche inde dañuy wax istixaara istixaara ñeenti at am mu dooroon ñu door laa mën a déglu majaas ñeenti at lay am doora mën ñu door laa mën a déglu ci atte bayaan musabbaha ci misli jooju ñeent lay at foog mu am musabbaha ak musabbaham bii ak wajju tasbih ak adawatu a ñeent yi lu ci dàqu rek ci atte bayaan ca tasbih duñ ko mën a dégg duñ ko déglu sax yàlla ne inse juruma ko de juruma ko amul saar woo wax ne lam yëlit lu mu ci teg walam yuwalad ndeysaan am na benn waay ci suñu jumaa ji ku laa biir la bés mu dafa ne ma alaaji daal am na ci ñiy julli di wax naan lixlaas boo koy jàng danga koy masiyet deel ya ah, xamalu tax waaw benn waay moom ma daboon di ma ko wax ah, te itam yenn laaj yi noppee tontum seen surtout bu ko ñenn ñi laajee yàlla ne duudu ay du sama doom de tasbiul ahla bil addana borom bayaan dina ko def nirale lu ëpp doole la ngay mu ëpp doole la nga koy niraleen tasbiul ahla bil addana xam nga lu muy jur tëj gémmiñ kiy wax ak yow abdou fram loo xam ne li ngay nirale moo ëpp doole lan nga koy nirale fuuf ngir noppi la kiy wax ak yow su ngeen ne aadama su ngeen nee Iisaa maa ko jur te sukkandikoo wuleen lu dafa amul baay di looloo tax li ma amul baay tax ñu ne maa ko jur kaay ma wax leen ku ko gën a yéemu kookaay kan aadama Iisaa moom di yaay rek la ñàkk baay rek la ñàkk aadama nag amul baay amul ndey kooku mooy niirale lu gën a for la ngay yéem yaa ngay yéem ku am ndey te amul bàyyi ma indil la nag bee yoon faf ku amul ndey amul bàyyi te di nit ni kooko bismillah sëy kooku mooy tasbihul adana bil ahada géy dudu ki ngay yéem ne fu mu jaar ba di nit te amul baay ma indil la ko amul baay te amul ndey te di nit baa leen ma point leen ma fi ma téye damay jàdd tuuti ci alquran ma kunta tadri ma alkitaabu wala al imaanu walakin jalnaahu nooran naadi bihi man nashaau min ibadina naka joxar bi dàkk na ko wa innaka la taadi la taadi ila shiraatin mustaqimin شراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور yàlla fi mu nekk ak fi mu denc yëfam ku mu tettewul doo fa jaar tàndale dafa yóbbu nit di ak làmbaatu wax naa la sànq ne wëliyu wu amul xam-xam ku ko teral dem àjjana ku ko toppa dem safara parce que du xamul fi mu jëm ak yow foog nga ràññee nag dudu foog nga ràññee loolu pour ñëpp wuy si nañ la ñu ngi lay rek te fekk làmboo woo këfin ñaari yëf ku ko yàlla defal war ngaa sant yor jikko juñ la ñeme ñi diise soxla ak xol boo ko mën a faje bari na ku fe bari alal lool kenn ñeme ñu ko di soxla te moo fa naa gàññe gàññaaram mais kenn du soxla ba sa dem ci moom mais yor melokaan woo xam ne koo dëkkal ku mu doon ñeme na laa di soxlaam yàlla dimbale la nag ci xol boo xam ne ji itam soxla suñ la diis la nga mën mën nga ko ci caa def kooku borom wala yu la wala yu la kaamil saa yi rek baat tarop lu ne gàññ te xolam kenn du dem ci yow lu njàqare metti metti dañ lay jéggi musiba la yàlla leen yàlla dolli damay wax kenn mënu la rédiger loo mën a giidee am réew wacca fi téere alxuraan bii ànd ak ñoom teeru fu la neex impossible du am mënu la am ba inna naanu nazalna dikra wa inna lahu la xaafisuun maa rédigé man yàlla maa rédigé sama constitution pour jaam yu ma lew maa xam fi ma ne li ma denc maa fa xam maa mën a yoon wu fa jëm ku xàll ku dul man yoon wu fa jëm yaa koo àndal di ngeen soobu ci jaanama yoon woowu la ñépp bàyyi léegi kenn ku ne lu dal sa xel rek nga dem ci te yow fi nga dem bariwul duudu loo gudd gudd tànk fi nga dem wula ëpp li nga dem loo bari bari wërsëg li nga moom wula ëpp li nga moom loo bari bari bari bari kattan li nga mënula ëpp li nga mën waaw ana fay mën a jaar ba war a mën a redise denceb yàlla bëgg a teggi ina shushirati mustaqim jàng naa ko léegi mën a jaar keneen feneen moom la nekk premièrement indi naa la benn point ci diggante jigéen ak góor du ñu mën a nekk du ñu mën a nekk du ñu mën a nekk alxuraan wax na ci addis wax na ci ku jéem ñu nekk itam di nga kër këri ba tàyyi te la ngay jéem du sotti te di nga am affaire rek kii noonu mënula la ndax mag kat ku weddi wax am wax fa la waxuma mag mu toll ni yàlla yeb di wooy yam cay weet di bind tekki waaye lu tere nit ñi jàjju waay lu tere nit ñi jàjju dafa jotul añ reer rek soxla mu faju rek ñaari weer yoo feebaru rek nga ne fa nga xëccoo góor gi baat bi mu tëral loolu lu jiitu si juddu du dox dudu Euh, laaj naa la sànq bi nu yàlla defar nit ku muy jëkk defar nga ne ko góor ma la nu mu ko defaree nga yéex ma tontu ma la yàlla bañ ko tuumaalee ne ko yaa jur xeexee mu ne juruma ko def ne insecte aadama yem ci man mi ma jëkk a defar xeexee ndey rek la ñàkk bàyyi rek la ñàkk waaye am na ndey aadam amul ndey amul bàyyi te juddu na kon nag ku jàngul xam ne ki mën am ku amul ndey ak bàyyi juddu mën naa juddul ku amul bàyyi te am ndey ba muy defar góor waxul ci jigéen daal daf ko fa teg lu mu defaree góor ndox suuf kattan coobare mën-mën ba mu pare mu ne ko nekkal nit ku tudd aadama mu dal di nekk nit tudd aadama ànd ak ru du noonu léegi àggal na ci góor muy préparé nag pour jigéen maanaam nag bi mu ñëwee pour defar jigéen ndax ni mu defoon aadama la def pourtant suuf sa jeexu fa de ndox ma jeexu fa kàttan ga jeexu fa sañ-sañ ba jeexu fa mais différente il y a grand différence bu rëy moo tax mu ne fi ñukk suuf sa mu binde woon aadama dafa ñuk ndox ma dem ci biir adama ci boppam rocc fa lo xam ne lu fegg la lu fegg la lu terewul mel mak mag doxi ñun ñi fi tok ñëpp amu ci ku ci am faar bu complété kuy góor ku ne sa faar complété wu ñi rek am faar yu complété douze lañu am fii onze fii mu seet yax boo xam ne du yeel sax yeel fàngaaral na te jub te tàlli du lupp lupp placé na du përëg du daa ngi na rabu du du du du du du tënk du ci ci biir yi yax la yax boo xam ne jubul réyul dafa sew te dëng ca la aadama ne ko nekkal xawa innama summiyat il xawa xawa li annaha xuliqat min hey yi tax ñu tuddee awa awa mooy dañ ko bindi ci kuy dund ci kuy dundal lañ ko roccee bind ko moo tax ñu tuddee ko xawa différence boobu nga xam ni ci yow la ñu sàkk génne ci ku jigéen ku jigéen ki balaa jéem a ñëw ba yëg sama martaba ba war a dajeeg man ne na ma jéem a fay li ñu roccee woon ci man boobu avant tout nañu wax na wax ci faar gi nag sama faar gi na defaree xanaa bind ko ci maam awa wax nag ne في بقرة الرجال قوامون على النساء على الرجال قوامون على النساء دينا وخنا تكن دو ميني لاج كون مين تكي سامي وقت تكن دو ماكو لاج دي تخ بما فضل الله بارما على بعض وبما فضل بما فضل الله بعضهم على بعض روان لكن منو لجن wa bi man faqoo mën nañ ko jël wa bi man faqoo nag la gaa yi jàpp wa bi man faqoo la gaa yi jàpp ba jéem puus jigéen ñi pour ñëw ci rang bi parce que yàlla dafa wax ci alxuraan ni maa def jigéen góor ilif ko pour mu di ko diriger di ko jubbanti ñaari yëf a tax nga ne lu ma defal góor te defaluma ko jigéen ak nag li góor di dépenser te jigéen di denc alors léegi nag bu mujj bi xam nga alxuraan ngi lay tal li tax ma jox baat bi góor arrijalu qawwamuna ala nisa bi sababi bi ma fadala baadum ala baadi loolu moom xel nekkul ci jéem koo gëstu mbaa jéem koo uti mbaa jéem ko koo utal boobu man faqu fi la wax ñi nekk ñu defee nag bi man faqu booboo dox maa fab kilifteef ju jigéen teg ko ci góor lu tax ngir ngëneel lu ma defal góor te gestuwuma ci jigéen ah, ah, dencal sa tànk nag dëggal sa tànk ci ci ngëneel li ma def tuddul ngëneel li ah ngëneel li ma defal góor te defaluma ko jigéen moo tax ma jox ko commandement bi deuxièmement mooy li ñuy bokk kër gi te lu góor gi lu mu am joxe ku jigéen ko mu am denc bi man faqoo boobu nag mooy dernière parole bi kooku mooy dernière bi kooku nag la bi jigéen ñi amee solde ngay di fay ndox ngay fay làmp xëy na wala ngay joxe añ muy joxe njogonal xëy na alors ci lañ ko bëgg a tiiree bàyyi bi ëpp importance bi yàlla tudd bi maa fadala baadum ala baadi boobu ëpp solo ay fa ay sutu ci xuloog na bi saaxarante parce que nii ndaw si di dugge nii wala ñeneen bu ñuy ñëw rasulullah danaan ne xëjal leen leen huna naaqisatu diini wala aqli ma dem duudu bi ma fadalloo baadum ala baadin dara góor waaw kañ góor xel complète la am jigéen genn wàll xel lañ ko jox fi mu ne booy ut seede te am guur sàll mu nangu laa seede booy ñëwee rek bu dee alal ñu jox ko ko mais boo wëree wër amuloo lu ko jigéen du ñu nangu foog nga wuti keneen ku jigéen boole ko ku jigéen ki nga am ñu door mën a servi duut sàll <laughs> gis nga ñu ngay wax ci miraas na góor ñeeg jigéen ñi war a yem dañ fi am njuumte njuumte li mooy miraas dafa doxul dox dafa doxalul coono dafa doxal daraja miraas fayul ki gën a sonn dafa fay ki ëpp daraja ci daraja la ñu moo tax góor am ñaar jigéen benn camion ceeb bi taxawoon fii def vingt tonnes loppato yu koy yebbi tool xepp ak ñaq yëgu leen la ñuy comptable ba duñ leen ko fay buñ doon fay coono kon ki wàcce si ceeb bi alors duñ ko duñ ko fay lu tuuti fay ki toog ci kër gi wante la tër yi di ko upp mu ne laaj sax léeg-léeg ndox bu sedd di naan et benn payam goo xam ne mën nañ cee fay fukki mëne bëri ñaar à ce moment da dal di gis nag ne fay ñu coono yàlla fay foofu coono waxna leni ci mam Adama la dénkoon sa dom ju gor gi ci mam Adama ngay beut di yek di wàcc ànd ak mom mais yaa ngeeg ay matière ci sa yaram yo xamne munu gos bi munu la fekk ba mag ci yow du am kawar muk ci yow fek mun ci yow du am ru muk ci yow fek mun ci yow bu la bu la bëggee quitté daal premier pexem mooy soppeeku espèce dëtt nekk lu ñuy wax maniyu mais pour former dara ci jamono bi nga ko yoree du ko mën parce que matière bi ñu rof ci yow la ñu deful ci ku jigéen ki ca maam Adama ngeen yoroon seen doom yi ngeen góor yi ku fi góor rek yaa ngi dese xam ne mu ngi ci sa ndigg mu jëm ci wala keneen ndigg ku jigéen jigéen ñi juróom-ñeenti weer la ñuy yor doom maa ngi seen vitesse dootu am fu mu nokkee tànk ne xuñeet génn bopp génn dënn génn léeg-léeg nga miir léeg nga wocc léeg-léeg nga xërëntaan lu ci ne nag boo ci tolloo lëf nga ci toll jamono bu jigéen di miir booba ñu ngi poosé nopp yi jamono boo gisee wecc mi bari wecc mi bari xalas bi la ñuy jamono boo gisee muy xër ñàng booba kawar gaa ngi sax kawari xale baa ngi sax di tuusi xel mi mais booba mais kooku euh, euh, euh, boobu liggéey kaar borom waru la mën a yàgg ak borom moo tax wax naa la sànq na le toujours doom yaayu koy jëkk a gis waaye nag toujours ñaare papa koy mujjee gis ndéem mbokk nañu gudd fa parce que yaay du dem armée la bañ ko naan cas jëkk ko ci dugal papa koy mujjee teg bët mais ba muy juddu ci yaayu koy jëkk a gis waaw yow kaar kaar yemal yemal yemal yemal fi ñu lay yem loo doxalal yem ci yow li nga xam bariwul li nga mën bariwul li nga am bariwul te doo fi yàggit xanaa doonu dëkk nag tusug rek ñu def ñi tusug ñu def ñi tusug ñu def ni bàyyi noo kene fi indi sant ñu li munu sant def téere teg ko ci loxo Moustapha ñu di ko jàllawle ba tey jii ku gëm wéy ku gëmul dem ci leneen la gëm waaye giñ naa ci salaatul fatiha ne ku fi rëdd sa yoonu wopp budul wi alquran tëral mu jaar ci yoonu rasulullah fa yoon way juuxee ki yow boo fa àggee di nga ne wuy sama ndey waaw da da ngeen defee jaamu yàlla nu mu neex rek waaye nu neex waaye rek mu doxale ko lu dal sa xel rek ni la ah ñu xam waxoon naa la sànq li nu indi fii suñ ci noppee xam ki fi indi suñ ci noppee xam dinañ fi jógam déet ci jóg gi dëggoo ñu jeex gëstu ñu jéem a jeex fi ñu jëmee fan buñ fi jógee ñu xamee fi ñu jëmee fan ñu xam ka ñuy fekkee kan suñu xamee ka ñuy fekkee kan ñu góor góorgóorlu ba xam li ñuy yóbbuwaalee lan yàlla ne da ngeen foog ne dama leen bind ngir foo rek am dangeen foog ne du ngeen retour retourné ñëw fii ci man man bind naa leen te noppiwuma bind naa leen jox leen ay service seetaanuma leen timm naa leen ci lekk tara ba ñu ba ñu julli ba jóg rek nga déglu bu baax con bi nga xam ne dafa jara bind waxuma sax bind mais dafa jara bind ak lankari wurus ak këyiti xaalis parce que wëlooru doomu aadama ak ruuxam dara dayu te toll nañu foo xam ne fii kaar yëf yi bari na te du du lépp de du lépp mënu la nekk bu nit ñi mënoon a wanante kenn ku ne won sa morom sa lépp nga gis ni ñu ëppante lu nekk bu mënoon a dugg ruq ku ne won sa morom sa lu nekk mu won la lu nekkaam bilaay nga gis nga xam ni ëppante nañu lu nekk saalika xayrun wa axsanu taawila saalika téere bii xayrun moo gën bu dul moom xayrun yiw la téyeeg ëllëg ci doomu aadama wa ahsanu taxwila moo gën a rafet loo sóobu lu mu doon fa muy teer ak ka ca sóobu damit yaa ngi dellu ci téere bi salika xayrun wa ahsana taawila yëf yaa ngi jóge ci yàlla ku nu koy jotal lu nu war kañ minallaahi biyaanu wa ala rasuli balaaqu wa alayna taslimu minallaahi bayaan ku la indilati dara ne sariya bi nii la waaye bul gàttindu na la wax rek fa mu ko toxale fi mu ko toxalee bu dee ci ñoo xam ne min rasulillahi nga marché te nabi kat noonu na ci dundam diina jàngee yàqoo ci borom der yu weex yi borom der yu weex yi ñooy yàq lislaam ëllëg borom der yu weex yi dañu réer ñi jàng ba raw te weex kat la ñooy kooj diina ji ëllëg nga ñëw di ku ñuul bëgg xam yoonu ndëng yoonu njub ñu sóobe la yoon woo xam ne di yoon bu njub sol ko ci yow ba mu fes del nga gëm ko ba nangu ko ba dootoo faale kenn ku la tàllal loxo pour naan la du noonu nii la kooku sax bu amul sens lool mbaa mbaa mbaa mbaa kersa doxul seen diggante mën naa dégg ci yow lu ko neexu bu yàgg laa leen noonu ne caaf mënul jiw gerte la ne gerte yooyu mënul jiwu de caas mënul jiwu caas mënul jiwu mën na baase de xanaa ak daxin ma pakk moraake waaye jiwu te man gis naa béykat yoo xam ne ñu ngi ruuj ba set la wecc tos ba mu saf rab ñu fab ay saakoy caaf rek ñëw ko di xar mu taw billahi parce que koo xam ne du noppalu lu ñu sa lu sarin a santaane mu nga ca lu mu tere mu ngi koy jéem a bay mais jaarewu ko fi sarin a jaarlu defewu ko fi sarin a defarlu kii kañ caaf la préparé balaa ngaa xam nag ne caaf mënul jiwu day fekk uti jiwu wees parce foog ñu ji ba am trois jours <laughs> baraadu ba àggal ñu wëri tool yi nag tooba gu ne di unk sa yos na meng bu boobaa bëggoon yos boobaa uti yi day dama bëggoon sariya bi niñ ko fekkee mu tëdd ni ñu siiware ko noonu premièrement gëm borom bi deuxièmement nanguy dogalam man duudu ne naa la wax naa la ko yow ñi ma jegeñ nga wax naa la ne ci baaxay yàlla yëgal naa sama bopp ne teg na ma ci marta ba boo xam ne xam naa ne ba ma ci tegee ci baaxaayam sax yàggul dara du ma naqari dara du ma neex lu neex sama borom lu ma nar lu ma ñor-ñor bu teeree uteeg la ma nar la teer gënal ma la ma naroon man li ma bëgg xalifa sama doom lu ma ñor ñor ñor ñor ma jëme ko ëllëg ëllëg ñëw yàlla dogal lu uteeg la ma bëgg la yàlla dogal may gënal la ma bëggoon fuuf mbax ndax moo ma gën a xam suma bopp gën ma bëgg suma bopp ëpp yërmande ci man xëccu matu ko yàkkamti matu ko yootu matu ko yuqantalu matu ko ku ne la war ci yow yàlla dina ko def ci yow na mu ware heure ba mu ware fa mu ware jëkkante du tax nga jot ci diib du tax nga ñàkk ko nan tekkeer lu bàyyi yëglu sunu bopp rek jàmm ji am dootoo añaan doo soxor doo ñaaw njort doo ñëñ doo ne kootul ndax am diw déedéet ñaari fa am dara mun la sotti lu yàlla dogal dara dara dara bakkal sa dara du sotti lu mu dogalul lu mu dogal lu mu doon mu sotti lu mu dogalul lu mu doon du sotti takku xew-xew yi ak ñi muy xew ci ñoom ak fa muy xewi ba mu koy yeew buum nga dafa naana naan ba kenn mënu cee ci dara lu mu yeewaale kenn mënu cee roofit lu mu yeewaale wul nan gore te rafetante njortu kenn ku ne sa melow ren mooy sa jiwuy daaw ku ne ni nga mel ren moo doon sa yéene ci jaam yi daaw waaw kañ ku ne sa melaw ren duudu sa melaw wi nga mer ren moo doon yéene dinga nga yéene woon jaam yi daaw li gën te gën a gaaw gën a noppale may temi conférence bi loolu la ar rida wal euh, nangu dogale yàlla d'accord ca te euh, muñ li muy am am doole d'accord ko ëpp doole ar rida fawqa sabri hadis bi wax na la ko yonent bi dena isa arada allahu خيرا بعبده ابتلاه فإن صبر اجتبعه وإن رد استفعه كون استفاع وانجي فوق اتباع اتباع من دون استفاع استفاع وانجي دون ابتلاء yàlla ne nabi ne ne bu yàlla bëggee ci jaam ak yokku da koy nattu su mujjee su mu mujjee su mujjee nattu ba su mujjee nattu ba mu proposé ko garaat su yemul ci muñ nga ndax d'accord ca mu garaade ko parce que ak sabru ak riyaa fooxa sabru yéegul ne d'accord ëpp doole muñ waaw kii muñ yëg ne ne dafa yëg ne am na lu ko dal dafa yëg ne am na lu ko dal naa muñ muñ du yow da nga ne du nii waaye naa muñ muñ du kii nag dana nii la ki da ko dana nii la parce que neneen warula am fii nu toll tey ci dimaas ji di lan ci weer wi ñetti fan ci ci ci quatre-vingt-huit dajeeg fukki fan ak juróom ci Shahbaan fii nu toll tey nii nu tooge tey jii nii ñii fi toog nii nii ñi fi tooge nii ni ma fi tooge ñoom nii kenn ku foog ne leneen mënoon naa am jantab tey lu dul lii booy boobu julliti feneen foo demit la fa fekkan namu soo foogee ne neneen mënoon naa am lu dul noonu daggal sa kurus dara du yëngatu si nguur gi lu ko neexu conférence bi moom maam Adama maase woon xam nga lu ko tax a yéeg xam lu ko tax a yéex di am ñu doon dund te waruñu koo fekke yàlla ne fag ñu dafa ñooñu dee ba jeex baa mu doo seen daayira bii du sax te diw deewul ak diw ak diw diw ba mu pare conférence bi biñ ko diggee xam nga lu ko tax a yéex ñi ko war a fekke am na ci ñu xëy ñu fu sori am ñu ñu ñu xëyee fu jegeñ ñu xëyee fu jegeñ ñu ci bokk ñu xëyee fu sorit ñu ci bokk dama la yëgal ne yàlla lu mu lu ko neex mu am lu ko neexul du am waaye nañ noppalu waay nañ noppalu waay tekki suñuy ngemb te kat borom bi wax nañu ne suñu borom ne na su fekkoon ne du pexe yi may yàq guddi ginnaaw bu suuf seddee kon adina asaman daanu ci ko ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض بدون وون دف دفع در گيما دك مان يالا گودي داخ سيتان نانت تي فخ يمي گيس كون اسمان دام تي سوف تي ياب واي دفو مكو دوما نلو ماغي توك رك خمغا لوي فناني tuuga waaye aacam tuug silay fanaan ba fajar ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله اصلح دمي على العالمين تلك ايات الله نتلو عليك بالحق دودو سخر سخر سخر بمار دي تالي انيانا انيانا انيان بمار دي تالي siis siis siis siis ba maar day taali tayal a tayal a tayal ba maar day taali bëggee bëggee bëggee bëggee ba taali bi yow ku la mën a defar man wax naa ne yàlla rek mën a doon suma buur ne ma baree tooñ man ak ne ma nasaxe ci service ku ma moomoon ku dul yàlla ba tey raafal nga ma man nu bëgg duudu li nga téye ki la ko jox ki ko ko jox ki ko ko jox jéem ko visité ba xam fu mu fu mu fëlli ji mais bul ñëw rek ma tàllal la nga nangu te jéemulaa gëstu li ma la jox fu mu jógee na ma ko jógee soo ko defee di nga réccu ji te fekk yow la yeddeel di dal alallahi bayaanu wa ala rasul tabliq wa alayna taslim ku dogal ku dul yàlla waxul dëgg ku ñu sant mu jottali ku dul nabi di nga war ku dégg tànqam lu torox yàlla décidé ne bay jottali ñun ñi nangu waaye dem ut sa décidation ba bopp fële seet keneen ku ñëw la miñ ko la ko jotal ñu nar a texeyaa di déggal la soobu ca musiba yi am téegal nay segg ñun ñoo am gën gi diina amul benn werante man yabtaxi xayral islaami diinan bu boobaa wa huwa fi al axirati min alxasirina sadaqa allahu alazim wa balaqa rasuluhu almustafa alkarim kii yëgoon na ne ay iddiyaanu am na iddiyaanu mooy diine yu bari façon ngi diine du yusiruhu ala diin kull walaw kare al mushrikun yëgoon ne loolu dina am waaye nag noppiwu ma ñun ñëpp taar ci dég-dég gu ànd nangu ko gëm ko ku ci ne àjjana nga bëgg a dem danoonu duudu fu mu féete àjjana wete ba ma ko la ne wala taati gi kañ waaw kay xamula fu mu ne xamula na mu mel sama papa daan na wax ne balaa maa mer nit dikk fi moroom ma àjjana mu gaaw di ko gëm te koo ci noonu bu ngoone ma may la palais Abdou Diouf bii du ko gëm te palais bi xam nga fi mu ne xam ni mu mel xam nga lu tax doo ko gëm la raw <laughs> mu ne nag même pale boobu lañ dëgg di gëmulu ko ngir ñànguk ña ko yor masa àjjana mi nga xamul fu mu nekk ak ni mu mel bii moom gis nga ko sa bët xam nga ne sax pale bi nii lañ ko tabaxe naak naa fii la féete itam mais àjjana fu mu féete nu mu mel sàndarma ya fa nekk rek ëpp doole yi ci wër bi kër waaj yi fuuf kon ku la ko dig nga gëm ko yàkka la ko dig yéena yem borom bi dane ation laa maa ngi bëgg a e, e, jàng xam-xam bu sew duudu foofu ci ation laa lu ci tegu ation laa ation laa wa rasula li tax yeesalaatul wa ation xam nga ñu bari jumloo am na lu leen jumloo ci ñi dégg dasee dégg fiq am na lu alxuraan indiwul nëbbi indi ko ñu ne fekk alxuraan indiwu ko duñ ko siiwër te li nëbbi indi ak lu alxuraan indi ñoo yem li tax ñoo yem mooy yàlla dafa asaf fele ci ation la daf ci asaf wa ation rasul ah teon na ngeen déggal ah teon dinaa di firi sax ci alquran di wax naan ah teon toppaleen laa yàlla wa ah teon te ngeen dégg ndigal rasul yonent bi topp yàlla lañ koy def dégg ndigal nabi lañ koy def koo dégg ndigalam ku dul yët nabi di nga fekkee jëlewul ndigal ci nabi koo topp ku yàlla di nga ko réccoo ku mu mën a doon ah, toppaleen waaye te te ngeen dégg ndigal nag ar rasul njol makka alquran ni la aatio la wa rasula mu indi nag dindi wa aatio ji toppaleen lu leen yàlla wax su ne cell toppaleen lu leen nabi wax ci ngay dégg nag ne waxi Mustapha moo ko waxi yàlla yem ngir moo ne maa yantaqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa e, kaar fa tabarakallah soo toogee duudu ba xam ne yow mukallaf nga mukallaf jullit nga jullit am na yu ñu tere yu bari yu ñu tere ci moom am déet fii ci laxdari ngay jëkk jàng laxdari yu bi muy lim yi mu tere muy juróom-ñeenti yëpp lan la jëkk a wax wax góor mu ne wa yorumu waaw kañ du du mënoon nga wax loolu ci ko ba ñëpp dégg ko lax diri mii ci taati kër gi nee na araam na ci mu kàllaaf mu wax lu dul dëkk xam nga boo déggee masa boobu te déglu ko bu baax di déglu rajo yi di déglu ñuy wax ñi di gor yu ñu war a yaakaar a topp te wóor leen ñoom nañu wax du ni mu amee foo jëm foo jëm seen foo jëm xanaa kañ da naan loolu kekk waroon wax mbaa kaa mbaa kafin mais kii mu jàng ne yonent yàlla Muhammad dafa am benn yow benn arab ñu jul ñu pare julli ñëw ci conférence bi kii dama doon nuyoo rek dafa am benn naar bu ñëw ci na bi nekkoon man de dama bëgg a tuub ci sa diine ji waaye conditions yi dafa dis te bari daf ci bari yoo xam ne daal mënuma koo bàyyi te nee nañu ku nekk ci diina du ko def parce que man dinaa di naan sàngara trop ku ñi mañ carte la tayal naa jóg julli guddi julli guddi jigéen ju ma xemam it dootuma ci seet dagat naag daganul te itam dinaa di sàcc ma bëggoon nag nga am loo ma ci wàññil ma mën a dugg di def euh, riyaada entraînement bi ba ma réussir ne bi na ko dinaa la jox ndigal nga bàyyi yée ngay def lépp boo demee donc del sàcc del seeti ku la lewul ku jigéen deel carte deel tux deel naan sàngara waaye bàyyi fen bàyyi fen soo décidé rek ne di nga bàyyi fen duggal ci diine ji di def tout mu d'accord ne ko euh, comme yëpp comme yëpp kii rek nga ma deseel benn waay benn alim bu bari xam-xam euh, comme ah, ah, ah, euh, permettre nañ ma yëpp bii rek a des Eh, dinaa tuub dal di tuub ci condition yi lan bàyyi fen fen baaxul dudu yooyu eh, mu yàq ñette ko yàq ndaw lu ànd ak dooleem te nangu wula liggéey te bëgg a teraanga jeeg ju jongama ju rafet nangu wula si mu kalaf dul wax dëgg baaxul day yàq réew parce que dañ lay dañ lay jombale dañ lay jombale wax loo xam ne amul fen waaw waaw ku yóbbu sax waxuma tàccuwaay sax ku yóbbu xaqtaay war nga koo nekk waaw l'islam moom luñ ciy def rek l'islam la ñuy roy luñ ciy def rek lu ñu fiy def rek lislaam la ñuy roy na bi ne na bu bu dëgg génnee bu dëgg génnee ci gémmiñ am lu yëngu lu yëngu lu mu mën a doon nag ñaari loxoy jullit dara ëpp ko doole waaye ñaari point yi ma wax ko euh, euh, euh, aray jiite ñu julli lii ma bëgg a gontoo maa ngi defe ne dina am njëriñ trop surtout ci ñun surtout ci jamono bi surtout ci réew mi wax lu dul dëgg na ngeen ko tudd ci wolof waaw kañ baaxul rambaaj baaxul man de ëmma duub والله القران دي بن كو تاغ سا بوب امنا صاح فو اي سي دون وني بوبم اك يوسف القران نين دي كريتيكي اي ديغول القران ني كريتي مي مجي نان لين واخ مجي نان لين واخ ني ньо ньо سيل نانيو سيل غو خامني نونو لولاي نخ دوخ اجلني على خزائن الارض اني لحفيظ عليم يوسف واخون لولو وكاي نوميما ما يريتاي ما ريومي جوبنا تمنا كالكيل ñu ne lu tax mu waxal boppam jub na ak ndawal ak ndawal Suleymaan ji wax inni la qawiyun amin photo yi Balxiis ba ngay laaj mën naa la ko indil balaa ngaa jóg fii ci sëbe yi antan naa ko te jub naa duma ci laal parce que photo yi bi soixante soixante-dix kilomètres soixante-dix soixante-dix soixante-dix mètres la woon ci guddaay yaatuwaay bi soixante-dix la woon ñu xoom ko wurus ak sabar jadda azavaraan mu dugal ko ci benn kaaw kaaw bi ñu tabaxal ko benn magasin magasin bi ñu tabaxal ko magasin magasin bi ñu tabaxal magasin ba muy juróom-ñaari magasin bi bal xiis pexeem jeexee te mu di roi Zabay mu ne foog mu fekk Souleymane parce que Souleymane won na ko doole joo xam ne nit amu ko dafa tij nag néeg ba pour dem malaaka yégal Souleymane ne ko ndaw saa ngi tuub si ndaw saa ngi jógee mel ni masa masalan Bamako Souleymane a ngi Dakar Souleymane toog na toog passé caaro yi ba ñëw foofu ñuy wax yaraax mu jékki-jékki ne taalibe yi fiñ ko wër kañ ci yéen moo ma mën a indil photo yi ndaw soosu ba mu xam ne la mu nekkoon jay la du nguur bala agsi ayyukum atini bi arshiha qabla an yati muslimin ñépp ngi toog foofu la téere yi xamee ne wali am na ku ma mën a indil photo ba bokk poids ba ak soriwaay ba ak ndaw si di agsi bala agsi xam nga ku jëkk a amoon na taalibe nit am jinni am seytaane benn ponkalam taalibeem jinni moo yëkkati loxo ne ko inni man mii dinaa la ko indil xabla an taquma min maqaamika balaa ngaa jóg fii nga toog toogaayu Souleymane xam nga kañ dama dund dix heures à une heure ci la daan at mu ne ko diir boobu dinaa fi indi këf ki Souleymane ne ko loolu tardé na kon waa jàll ndaw saak si benn nit jóg waxaala li say indoo elmu min kitaabi ana atiki bi xabla an taluda tarfukka man dinaa la ko indil balaa ngaa xef nit la waxaala li say indoo elmu min alkitab waxaale iflitun iflitu ji ko wax ko dem jinne wax réussirul waaye waxaale lesi indahu ilmun min alkitab koko kone ana atika bi qabla an tarwa tarfuka dinaa ko indi bala bala bala nga xet am naa dooleem te am naa njubu duma ci fell dara fa koko ngi tiitaru moom itam ñaari point yooyu rek comme fi dugaloon waaye pour affaire yi affaire yi balkis bi photo bi bi mu ko ne dinaa la ko indi bala nga xet def na Souleymane xoolal ci kaw Souleymane mu ne ko ci mu xool suuf fekk kaf kay benn Ismaïla Assane rek la dóor du ne nit la benn Ismaïla Assane la dóor suuf ngaa yegg ko wan na këf ki mu dóor ko mu cuti ci kanam Souleymane am atiku <laughs> bi xam daan tàq mun na xam ñu la xaw yoon ak si suuf ah bi mu doy waaw ndaw si dugg ndaw si dugg ndaw si nag ku ku ku compétence la woon parce que bu mu duggee Souleymane daf ne naakiruha qabla an taatiyal muslimin gaaw leen essentiel ma gaaw leen bi ndax dina ko xam ñu ko penturaat wàññi tànk yi yottu yottuwaay bi toog mun a jëre ay ay la ñu ñoo gën a kaw ba mu ñëwee téere yi nee na ñu Suleymaan na mu laaje ndaw sa moo ndaw noo tax ndaw sa tontoo ko na mu ko tontu daf ko daf ne ahakasa arsuki ndaw sa bi tamit bay dégg nii la mel ndaw si it fasa ngi laaj baa tax mu tontu ni mu tontu mu ne ko kaanahu dafa mel ni moom waaw su fekkoon ne daf ko ne ndax lay sa ndax léegi sa futooy bi daf ko naan bii la waaye daf ko naan ndax nii la sa futooy bi mel mu ne wétteet dafa mel ni moom la tontu yi dëpp wax wax loolu wax loo xam ne du dëgg baaxul surta raid la الرائد لا يكسب أحلام نبي لا نكوخ raid روح day sank riw ñaareel ba loolu ñuy wax rambaaj yow maag yow a bokk ku ñu yi ku ñu yaakaar maag yow a bokk patron ëppale naa sama bopp tokki patron bi tudd la ak lu mën a jaar sama diggante yow dina uppa patron yow nga matadi goo xam ni di seeti pexe ki bunt jaral na la soo toogeek moom wax loo xam ne lii du noona loo bon loo bon ñaar ñooñu kii fii la mu jég na bi tuub naa dootuma fen kii yor jaamam di ko jaay te kenn sañu la jaayale ayib joo xam ku waxaale mu ne la lenn rek ay ayibam de moo dàq liggéey góor ñi de moo ci gën a jubit bëggul alali kenn waaye yoo rambaaj la de ah kon nag jéggal ma seeti keneen ba ñëw ci benn waay waa ji xemem jàmba ak meloom ak mën a liggéeyam ba doyadal rambaaj ga jënd ko këlee bàyyi na fen bàyyi na sàcc bàññi na njaaloo ndax bañ ko permettre pour mu def yépp gaa yi ku ci yor këyit du dara amul wala nga dend ku ko am nga àbba ko bu ñu jógee dugg ci li ñu tax a jóg yi may waxtaan yépp ay feel la taatu garab rek la pour ja pour jàkkaarloog taat bi incha allah euh, euh, euh, waaja jënd jàmm jàmba daq liggéey gën a jub daq fee sàmm gën fee mën a bey gën a mën a wattu aleel yu góor gi waaye nag jëm rambaaj la ko jëndaale xam nga na na na mu defa ba mu fa xawee miin mu waxtaan ak seetu góor gu que yow day wax dëgg yàlla bi ma fi ñëwee yàggul waaye ku ma mën a teral nga bay daal duma xam lu lay gaañ duma la ko wax sëñ bi de dugg na ci ngoro ba defe naa daal di dinañ ko may ci fan xam naa nag buy ñëw ngay sa affaire di sotti de yow soxna sa ne ko aha ah, mun a waaw ah yow de fonkoon naa la waaye gën naa laa fonk waaye nag mën naa fexe day ba liggéeyal loo xam ne du ko takk mukk de ah loolu de boo ko mënee ci laa biir gi nga ma mën a defal loo ma laaj ma jox la ko mu laaj ko alal yu bari ne ko nag am na lu jafeñ lu ma ko war a booleel ci liggéey bi mooy di nga dagg ci kawar ci kimam ñetti kawar mbaa ñeenti yëpp na ko ma boole koog liggéey bi si fini ci yow donga lay yem te ngoro gi dina tas dootul denc du denc ku dul yow ndaw si daldi uti gànjar seen kër jox ko ba waaji na ko si fini mu rocceeku nag dem ci jëkkër ja ko yow yëg nga ne sa jabar ji am na far tànki rey la rek nag ba sëyi ak waayam jooju ci la nekk pexe mu ne def na ko tënut yàgguma ak yow nag waaye man ñi ma xam-xam nañ ne lu ma wax dëgg la naa la jox nag preuve su ngoonee rek na nga fexe nelaw nelaw lu di nga gis mu yor paaka jëm si sa put mi góor gi eh, teel a reer reerlu pour essayer mbir mi na mu deme ndaw si taas paakaam ku jéem uti kawar naka la góor gi def ay wareefam yëpp tëdd ci lal bi yooto sér bi sangu di xor xorol nag nelawul di xor xoral nelawul ba mu yàgg muy def màndargay ku nelaw màndargay ku nelaw ba ndaw si xalaat ne nelaw na mun a ñokket farasu saatu si ba mu baax mu samp cati tànk yi cati tànk yi ba tolloog sikkim bi naka la naka la na paak bi xuñeet góor gi ne ci tëbit ndax waaye waxoon nañ ma ko dugg ci tànki ndaw si ba ca kaw nekk ci suuf taa fa paaka bi nekk daqareen bi aha kañ càmmiñu ndaw si dugg ci yeelu góor gi nag ci suuf taa naka deqareen bi taaw yi gi dem ci càmm ci gi xare bi tàkk ci dëkk bi rambaaj tas dëkk kër gi tas dëkk bi tas àddina bi ca saasa waaw kay sëriñ yi sëriñ yi sëriñ yi màgget càm bu baax bi alaaji abdul sëriñ alaaji mansour moo waxoon loolu rakkam ji abdul aziz wax naa sànq xale bi ne ko kenn bokkul ak lenn du sàlla noon naa la xul wallahu ahadun liif googu ci ñu jàng grammaire su dul woon ak ki ko làkk borom arash la dinañu am luñ ci wax ñoom ndax ahadu bokkul ak waaxidu tey axaat boobu waa la waroon a doon waaye comme ñoom gis nañu seen emploi ci ci ci ci ci ne yoon wi góor yi mam yàlla xàllal na leen yoonu ñu mën a wuutuwante moo tax xul wallaahu ahad ana Papa Fall Papa la ngi fi waaw kay moom jàngalekat la ca Mbuur kenn bokkul ak lenn dina doon dinga gis ku doon kenn waaye kenn kooko du lenn yàlla nag daf di kenn di lenn moo tax waahidun bi mën a nekk place ahad ahad mën a nekk place waahid ku ne ci néeg bi nga yërndu ne kenn ku ne ci ne bi nga yëndu na kenn ku ne ci néeg bi ku yor rajo bi fu mu ne ku ne ci biir néeg bi nga yëndu na kenn ku ne ci néeg bi nga yëddu na kenn bokkul de wax kañ wax kañ yàlla kenn la ba noppi di lenn du sàlla kenn la moom kenn waaye du lenn ndax du tax du lenn ay yëf la boppalaak nopp ak tànk ak ndigg ak ginnaaw ak biir yëf yooyoo tax dootul doon lenn bu dee kenn nit yàlla na moom sëmadu la sëmadu ne nañu mooy lu dara du dugg ci moom dara du génn ci moom sëmadu mooy eh, këf kii pie bi taxaw waaw bu amu pax waaw kañ plein yàlla sëmadu sëmadu mooy plein parce lu dara ku dara du génn ci yow doo jur doom am ku dara du dugg ci yow duñ la jural doom moom samadu la samadu sax bi baat bi ñëwee te arab léeg-léeg ñu jeexi baat boo xam ne cosaan la waaye arab meenuñu ko bu ko defee ñaare dëxil lañ koy tuddee mooy baat bu dugg ci làkk te juddoowul ca làkk wa toujours alquran nag moo koy firil boppam bi mu ne samadu ñu bëgg a jaaxle luy samadu luy samadu def na mooy koo xam ne lam yalid walam yulad lam yalid walam yulad huwa samadu dara du génn ci moom dara dugg ci moom yàlla kenn la lenn la ci moom la santaane yi jóge jëm ci nun am ku nu dox sunu diggante mu jox ko ko am lu mu ko ci sant am ci lu mu sant ñi mu koy yëpp li mu sant ñi mu koy yëpp bokkul ak li mu ko sant moom li mu ko sant moom bi ko defee te ñañu doon yó te ñañu ko yónni ci moom defuñu la mu leen sant yàlla ne dégaaseel maag ñoom la mu ne ci suuratu nuur cinquante neuf atiullah wa rasul fa in ali maa umila wa aleykum maa umiltum waaye li mel nit ñi daal te mu leen wa in tuuti uhu të foofu la wax bi nekk waxal li ma la wax ba ñu dégg ci suñu lànkee dafa am lu la war yow am lu leen war ñoom lu la war yow tabliq tabliqu risalati moo la war lu leen war ñoom jëfandiku li leen sant soo wax soo defee nag yow li la war te ñoom defuñu lu leen war maa ñoom la waaye li ma wér di moom bu ngeen dëggu leen bu ngeen dëgërulee bopp ba bu déggal ko dina leen sóobe yoonu àjjana duudu kër gi day yàllaay wax li mu naqaree naqaree arrivé li mu naqaree naqaree ñëw si intuuti uhu su ngeen déggalee kii kii kii të tëduhu dina leen tet bu dugal leen نعم واو يقين أتوه جاي أتوه الله أي توبلين يلا ورسول أجنولهم لمو يبرتيمهم سؤالين كواخي فإن تولوا بني لانكي واتشنغ فإنما عليه ما أميرو وعليكم ما أميرتم وإن تحتدوه أه؟ وإن تؤتئوه تحتدوه wa ma ala rasul illa balax tey man la ak duma kii jote rek ko war su jotalee nag ku dégg tànqamlu bu yeboo dagaa si jug suma digganteeg moom bokk na ci yi dëgëral njulliti ku tudd jullit mbaa nga tudd sa bopp njullit mbaa nit ñi di la limaale ci jullit yi yi may bëgg a wax nga xeex ak sa bakkan ba jéem koo rempli lu ko moy tudde nañ la loo doonul tuddoo nga loo doonul te ku tuddee ku ñun tudde loo doonul bés bu ñuy fay ñu ko doon kii feyee njàccaare na njàccaare goo xam ne lu luñ la ko taqal taqal doo recevoir dara ku tuddee su bopp loo doonul it bés bu ñuy segg yëf yi dinañ di sànni ci àll ba nii ku ko ku ca doonul li jiitu jërëjëf yaram ko la alaa gay sànq bi muy woy te ma ko am nag point bu ñor bu ma fàtte dama dem ba li ko bëgg a jël nga woy bi ñuy julli fàttaliku naa ko waaw euh, waa kër insie dañu fa am akar mouche dafa am at mu am sécheresse bu metti ñu def istiqaaw baaw naan baaw naan mu të taw baaw naan baaw naan mu të taw ñaan julli sarax mu të taw yàlla ne euh, mouche duma leen tawal mukk te rambaaj na ci seen biir bu ngeen de woon ñaan ba ci géej waaye duma taw de ab rambaaj na ci seen biir waaw koy Moussa nag ne yàlla wax ma rambaaj bi ma génnee ko léegi ñu rey ko yàlla ne ko kon ma doon rambaaj dégg ngeen baax bu baax yàlla wax ñu rambaaj bi tax nga taw la yàlla ne ko su ma ko waxee doon rambaaj te duma doon rambaaj duma def duma def lu may tere war na ci koy julit Amadou Sall yanbaqi an yuallama rida an illahi fi kulli ma yafaluhu bil abd lépp loo xam ne yàlla dawal na ko ci jaamam nga tudd jullit tudd sa bopp jullit jaadu na ci yow nga d'accord ca loola kontaan ca nee nag lu yàlla dogal nga nangu bul cuune ba dégg primi ne sabab lu warul ndax sabab lu mooy premier dogal yi yàlla gën a bëgg waaye bàyyil sa bopp ak sa borom fu mu la jaarale moo gën fa nga bëggoon a jaar du jur nag banque say loxo déedéet li jaadu te gënal yàlla mooy yëngatu lu bëgg a dal ca kaw nga ba wax ko loo xamem jéem ko yóotu soo defee sa kàttan ba say kàttan teer te réussiruloo ca la taxoon nga jóg na nga wëlbatiku bul yoqi bul dellu ginnaaw d'accord ca la yàlla sottal mu gën a la nga doon yóotu waaw addis bu am solo bi yonent bi def ne al al muminu qawiyu afdalu inda min muminin daif hadis bi ne ne sun borom ne ne jullit bu dëgër bu dëgër bu am tit bu am coono moo gënal yàlla jullit bu yaafus jullit bu am fit mooy ban mooy bi nangoo daan dooleem nangoo sonn nangoo sa bopp su fekkee am na lu ko dëkk mal lu dëppwu la bakkanam mu xalaat mu jur gàcce mbaa mu xalaat mu jur naqar mbaa reeyi noonu mu bañ a mu kiirti kiirti kemta laayi te bàyyi xelam nag lu satti yàlla la la mu doon daw bu ne ci kawam tées nag mu wuuteeg la mu doon fexe na d'accord nag ca la yàlla def te bu mu ko jural na tiit mu yolomal ay gëmab yàllaam na gën a dëgëral nag gëm yàllaam te ni nii la buur bi dogale te ni mu dogale moo gën waaye su fekkee góor gu day góor gu yaafus nga euh, di jullit bu yàccaaral doo jéem a yëngu pour lu la musal ci li la dëkkmal su agsee banaa ci sa kawit day dal di yëngal sa njàqare su yëngalee sa njàqare mu ngay wàññi sa pas-pas yi gëm sa borom ndax mu ngi mu ngi dal di bëgg a dugal ci lii sotti soo defoon nangam du sotti soo defee woon nangam du sotti soo moytoo woon nangam du sotti nga dal du dugg nag ci buntu kéefër sa liimaan commencé yolom sa buumi liimaan commencé eh, eh, eh, di yolom boo ko yëngalee mu yëngu mais bu dee ku dëgër bu dee ku dëgër su teeree teerewul na ko neex day delloo boppam ci boromam na nii teer de dama dama ko réere woon waaye wóor na ma ne moo gën la ma doon wut lii gën a dëgër gën a sax moo tax hadiis bi dëgg ci ne jullit bu dëgër buy bañ te du gaaw a jàq du gaaw a jaaxle ndax nuyu la rek xam na yaa ngi mbir kooku du mbiri jullit da fees dell ak njàqare di ñu diggu la diggu bu tooy bu naqari ngay muuñ kenn du ko xam ci sa kanam boole kook nag di muslu ndànk su teeree na ko doon mooy tandikoo bu mu wàññi ci sa gëm sa borom dara na nga di gën a yeesal sa gëmu borom xam nga lu tax wa insi an takro chey wa insi looloo tax alima laawu wantum mu ngi nii ah, affaire bi kat ni ma foogoon ba ne nii la ndeke du noonu nii ko góor gi teerale moo gën fuuf ni ma doon wax sa limaan duudu day gën sax xam nga lu tax ngeen di wax loolu yàlla ne léeg-léeg ngeen seen lëf lu leen dëkk dëkkmal ngeen di ko daw xël yu metti te yiw rekk la léeg-léeg ngeen seen lu leen jox ginnaaw ngeen di daw xël yu metti pour dabu ko te musiba rekk la musiba la saayir musiba la baatin ñu ne yàlla loolu na mu mën a dale nit ak nit ni ma amee xel xam li koy gaañ xam li koy lor mu ne boo gisee nit di daw njariñam du ñuuxu loromam li ko ko yóbbee mooy dafa xamul ëllëg te alima xam na laaw yàlla li ci ëllëg te wa antum la taalamoon moo dul sàll sa bët sa bët yu gàtt gis-gis bi sa gal sa xel mu gàtt xalaat bi su yor gu néew xam-xam gi na ngay mën a fexeel sa bopp lu baax ci yow est-ce que fi nga toog yaa ngi seen Dakar subaa ngi bu doon subaa ngi bu doon oto agsi na mu ci raat bi mu ngi yëpp bagage fees del ku ne mu la yoroon mandat loo ci xam dara ba nëgër ni ëllëgee ku ne taaw mandat boo xam ne fii nu tey xamula woon ci mandat boobu dara ki ko yoro ko xam xam ki mu jëm ci moom xam ni mu ne ci moom kon nooy xëccoo yàlla waxaat na ne wa in shay'an tuhibbu shay'an wa in shay'an takrahu shay'an wa qad ja'ala Allahu fiihi khayran kathiran mën ngeen di bañ lëf te lëf la ngeen bañ saayir ba moom ngeen xam waaye biir baa nga fees dell ak njëriñ kooku na dafa yaa soxna su la gënalul sax soxna soo xam ne takk nga ko xamula noo koy def gënalu la tontu li neexul taxu ko mën xalaat kenn présenté wu ko gan mais lakkal na la yàlla na téyel rek téyel xëy na def naa sa digganteeg moom ku war a juddu nekk chef d'état mën naa def sa digganteeg moom ku juddu nekk imam ratib mën naa def sa digganteeg moom ku juddu nekk richesse capitalisme kon léeg-léeg ngeen bañ loo xam ne mu nga wan naa su ci biir teraanga ju réy ju ngeen gisul sunu borom ne alima laahu wa antum la taalamun gisula duudu ku ku ñaan ba tàyyi am oto yàlla ma yàlla may oto fi ma ne daal tànku miti na yàlla ma yàlla baax ba ma am oto nga am oto samedi ji ngi ci ci mu këpp nga dee jigéen joo xam ne je dooma ko tere nelaw sërëm yépp xoor na ko léeg sax mu sàcc ci dépense am xoraate ba ëmb day wasin dee nga essayé antuy bu sëy léeg-léeg ngeen décider lu ngeen bëggal seen bopp di xëcc di ci dem may tànqam lu te musiba rekk la bàyyi leen maag seen bopp maa leen gën a xam seen bopp maa leen gën a xam li ëpp njëriñ ci yéen maa ëpp yërmande ci seen bopp te jaam du de euh, yow du sàll sa xar mi nga yeew xaram tubaab biir mi nga yeew rek Euh, doo tey tey lu jam ko paaka jamono boo koy ñaas sax la fa tax soo ko demee ne tëbit tànk bi xëcc ko di ko fott ko dafa fa xajoon booy moolee tànk bi dugal sa loxo ci suufu ween bi kowatul wët euh, wete ngi ci seen boo xam ne wi moom ngay dindi mais du pour soxore ko kenn du bañ si yëf te yàlla moom nit ñi ku ne da ngay xam la nga moom neexaayi lu moomeel yaa ngi koy xamee ci li nga moom neexaale neexaayu moomeel yaa ngi koy xam kii nga moom bés bu ñu sàccoon sa waxande ngay doxantu fëgg jaay ba toll ci seen kol guñ ne yël di ko jaay deux cent franc kol ga nga moom ko bu ci sa bët ne tegg sa xol yi jëkk ne rësit foo fooraayu moomeel ca ka moom ca la mu moom noonu la mel xam nga yàgg naa laa wax ne bari na ku mbir dal nga naan fu ma jaar te mu ngi la jaare ci jaam yi ndax jaam yi xari yàlla lañu ku dëkkee door xar mu la ruuralul ak bu yàggee di nga wax ak borom ah? te bokk ci aada yàlla waxat jarat aadatu mawlana ala xalqihi ci bañ a yemale yépp xeet ak yépp melo kooku feeñ na ko ci gàncax yi feeñ na ko ci jur gi feeñal na ko ci jawahir yi feeñal na ko ci xeer yi wenn xeer a ngi xeer la tudd xeer boobu jamono bu yëngatoo bërëmin lañ ci dóor pour teg ko taas utiwaat kenn ki marta birin taas est-ce que dudu xeer ba wule defe nga ni niroo naa xeer wala ñu yettal Abdou Diouf mu tekk ci ko toppal wutu na wala xeer la bii xeer la mais président kaw taabalam wala Ben Ben kilifa diina wala ben kilifa adina gu yalla may alel mu ngay utlu wenn xeer xam xeer waw jekkal ko ba mu jekk di ko tek kitabalam di ko xool du ci dal yalla xam xamulen mo xam ni mu ëppalante mbir mi ak ni mu ko dogale ak ni mu ko sutanteen ñëwal ci ñëwal ci gàncax gi ay gàncax gi yoo xam ne dañ koy yar ci kër duñ ko añe duñ ko reere xool taar beeg foon xet gi rek la xam ne bu la xet gi duggee sa boppay metti foog nga fuftandiku ay fan ay weer bu ci nekk suufa ko sax asamaana ko taw yàlla ko samp nga gis Amadou Sall différent boobu am foofu ñëwal ci fas yi naaru góor ngi boo xam ne ñetti nit lañu ñetti nit lañu bind ñu di ko toppatoo kii di ko jaabal kii di suqi kii di ko jaxasel pepp ak kii di leeñ te fas rek la bu génn jotee bis bu rafet lañu taf ci kaw dañ ko fuddan sax defal téere fas rek la seetal fas nag ak fas fi takk bi romb ñu sëf ko ba muy bëgg a dee jëm ak moom fu sori mais duudu waxuma coonay fitnay fitnay sëf bi waxuma ko fitna bi ak diisaay bi ak sori bi waxuma loolu xam nga lu may wax léegi fitna ji koy waaji yi teg waa ji ko sëf ba noppi toog ci kaw fitna ji mu ci yokkaat nag nga bu ko bàyyi woon ak sëf bi sax mu kantan kan gi ba yóbbu ko fa mu jëm sax mu xaw a am tan nga seet naaru góor wii ci biir kër gi nekk ci disposition ñetti xale lu góor ñu di ko jox pepp muy lekk ñu di ko takk par tàkkusaan rek doxal ñëw takkaat ak kii nga xam ne karos giñ ko takk rek doy na coono doy na mettit doy na fitna yemuñu ci nag ñu ne ca di ko dóor dóor yoo xam ne gi kenn mësu ko gis ci mettiwaay mbiri yàlla noonu la demee ci liñ doon waxtaan léegi sax ci la bokk nga dellu gannaaw seetantalu ñaar ñii xaj boo xam ne bii ci wëtiiri kilifa lay dugg di lekk wata xaj di ko takkal seeni wurus xaj ak bi nga xam ne xiif baa ngi koy rey ci mbedd mi te ku ko seen fab xeer taftaana baynahuma xaj xaj la xaj xaj mais bii suñ borom def na ci coobareem li ko nekk ci moom mooy watir lay dugg boo xam ne nit dund na ba dee sax te dugg ci bu wëloore noonu du yomb dina dem ba di muy doon xaj sax nit antana fab gémmiñam di ko fóon ci leex mbaa ci bopp bi bokk ak moom lekk takkal ko ceeni wurus nga seet nag benn xaj biy jaar ci mbedd mi bay bugg a dee seen yax boo sànni woon bu di ko yéem a songo nga sànni ko xeer xam nga kooku wute wute yàlla la jëfe jëfe jëfandikoo moom rekk ko xam kenn mënu koo xam dafa sew-sew goo xam ne gi kudul moom jaarelu la ci moom xam ko dina jafe bàyyil xaj dudu bàyyil bàyyi may bàyyil jamaadaat yi bàyyil nabaat yi ñëwal ci nit mi gën ci li yàlla bind nga gis ni mu leen def nga gis ni mu def ni lu yàlla bind nit a tax am déet nit nag lu tax yàlla bind ko boppam imaamu Xasaali yi boroom xam-xam bu réy bi dafa wax benn wax bàyyi ko fi diggante meeg Cheikh Ahmad Tidiane yi jegeñ ne junne at lu topp ñi téeméer yooyu ñu di laaj cheikh ci bi nga xamee ne mu ngi def muskilaat yi nga xam ne ëllu laa yee ko fi wax mu foor ken mënu ko tej di ko laaj baat yooyu cheikh mat abdou ghazali waxoon ci rasulullah nañ ko war a mën a dégg te kat ñaari leetar rek la وليس عقدا مما كان فيه مما كان عليه الله أكبر خمغا nga sa ñaari nagi bët yi جام kooku jaam jaam yëpp lontu na وليس في الأمكان أبدع مما كان وليس في الأبدان أبدع مما كان خمغا شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ جاي xam nga dafa am anwaaru ahmadiya ak muhammadiya ak ibrahimiya waaye ahmadiya moo ëpp doole muhammadiya ndax leer gi bi mu nekkee ahmadiya booba nabi abdul il abdullahi la booba abdullahi la nabi bi mu nekkee ahmadiya mais bi mu ñëbbe di muhammadiya dafa nekk abdulillahi abdullahi nag bokkul ak abdulillahi moo tax aqiqatu anwaaru Muhammad kenn mënu koo xam soo gisee sëriñ salaat fatiha bi kenn mënu ko firi leeru nabi la kenn mënu la xam siyoote yu ne ne xuus naa juróom-ñaar fukki junni géej ci leeru muhammadiya pour jéem koo xam maaye maa ngi xëxee ca tafes ga mel ni dugaguma benn paa dur sàll xam naa dut sàll moom nga wax waaw xam naa dut sàll ku digg doomu la euh, dafa xeereer mais doyul euh, euh, nit yàlla yi ñii dañu xam ne bi ci jëm ñii xam ko ci ruu ñii xam ko ci xam-xam ñii xam ko ci ragal ñii xam ko ci xol anwaaru muhammadiya nag li tax mënee su koo gis mënee su koo xam dafa nekk ci daaxili ilaahiya dara dara dara fenn ca waaw fexe naa nag ba xam du sàll gis naa ko dafa digg doomu waaw waaye gisula ko parce que du sàll bi nga koy gis mu ngi sol sama door xamula ndax am na léegi ci digg ginnaaw wala am na léegi ci wóom bi wala am na léegi ci kii bi kooku mooy mooy ahmadiya góor góorlu nga bëggee ne ibrahimiya futti nga léegi jëmm ji ba janoo nga gannaawam ak kanamam fu góom am xam nga ko fu léget am xam nga fa fu karwaas musa dal xam nga fa fu ñu ñaasoon ngir fu mitti xam nga fa mais doyul doyul lu tax doyul zahir bi nga xam mais tolluwul noonu nga puus nag bëgg a passé abrahamiya passé ahmadiya xam nga bi yoon nooy def da ngay jéem nag butti nit ki jéem nag xar biir bi nga xar biir bi nag ah ne tigi tigi xol baa ngi nga janoo xol bi dal di janoo ak res bi nga dal di janoo ak xalas bi mais am na lu la réer meng loo xam ne doo ko gis mukk ginnaaw bi nga gisee du sàll ak jëmmam nit ki jëmmam summi mbubbam gis yaramam fees ko gis biiram am na loo dul teg sa bët kooku mooy anwaaru muhammadiya kenn mënu ko teg bët waaw léegi xaras waa ngi res waa ngi waxatuma sax yàpp waxatuma sax sidit waxatuma sax yàpp mais maa ngi jënoog yëre biir yi mais yëre biir yi li may seet gisuma ko ci parce que maa ngi seet ruugi ruugi fooy gisi ruugi nu ruugi mel nu mu day fu ne ni mu la réere ci juma jooju noonu la noonu la nooru nubuwati réere ci nooru ilahiya mooy anwaru muhammadiya bi nga xam ne bii seen jawharatul kamal bi cheikh tijjaan nañ ko cay bàkk ala ayni ala ayni الحق على lati الحق mina تتجلى sax بابو صاح ما xam nga قام kamal dafa am صلاه المستعان ni julli juróom yi amee salaatul usta salaatul usta jawaatu kamal moo gën a foor salaatul ula moo gën a jor salaatul axa li ci sekkere ci salaatul usta ci jawaatu kamal doo ko fekk ci première bi salaatu bi doo ko fekk ci dixième bi parce que jawaatu kamal ñetti salaatu la ñetti salaatu la bi ci digg bi lañ tuddee salaatul usta وخلون اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانيتي وليأخذة متحققة حياتي مركزي فهو الماني بنور أكوان متكونة الأبدان سايب حق رباني البرق أستع بمسون الأرباح مالئة لكل متحرض من البهور والأواني ونورك عن الذي ملعت به كونك رأيت بأمكنة المكان نجال جنن جلي نجال اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها وروس الحقائق عين المعرفة الأقوام شراطك تامي الأسقم غتيرا جلا جرين جلي نناك على تلاز الحق بالحق كنز لازم إفادتك منك إليك إحاطة نور مترسم نتي صلاة يعي نتي أنوار يجي نتي أينو يجي نياري شراط يجي مي بيجي دي بي مو أبدال مولي نتو دي صلاة الوسطى جوان رسول كمان am na ñaari mode d' emploi de travail dinañ koy def mille def salaat fatiye cent wala nga def ko cent def salaat fatiye mille ala ay haajatin ala ay haajatin waaw ala ay haajatin nga gis nag ne aqiqatu muhammadiya ayasal anami kulluhum atallan bi ay wal mursalin والملائكه المخربين من نيو خم حقيقه محمديه كوتي خوس رك لاب وخونا لا ساقني سو غيسي يالا ام ابتيت بلا يوني كين غام 40 عام يوني يونت وخوما اك يو بركي دي مني سيني بابكار ات مي موي ген ادينا بوبا 10 ن جو خن جوك تاخو خاوكو من الله اكبر تا عبد تولو نك bi mu fi mujjee jaar ñi di ko teeru par par gaar par gaar mu takk médaille yi keroog bi saxaar ak accès fii jéem na ñetti yoon jóg pour sëpp ci palanteer bi gisi nit ñi euh, euh, diisaay bi xam nga ngel màkk su wax yu monsieur dep soo xamee ne branché nañ ko wax yu fekk ropp wuñ ko dara du ko antal loolu génn loolu mel na mbaa mu muñ daan wax yaxfuur abaw ah, say fetu nee na toog naa ne bi di waxtaan wax yu ga fekk ko fa fekk mu teg tànkam ci suma lupp waaye suma lupp xaw naa sooy ngir poids bi poids bii la rootul antam anwaaru ilahiya xam nga nit ñi ñu ngi wuutee ni silmax ak ci nit ñi nga xam ne jotuñoo kë su dara dara dara ci anwaaru rasulillahi sallallahu alayhi ak géem a këstu ñooy kan yaa ngeen wax ak say tànk di sot sa grand mbubb di añ di reer di ñëw di na noon la ñëppay def muy guddi di bëccëg noonu la ñëppay def mais yaa un autre chose bu bu bu bu bu la kenn mun la wax balaa yàlla yónni kenn moom ñeent fukki at ولا ولو أرسله بالوي إنما دا جسل حاج مالك أخنا له جسل جسل سيفر له جيم طوال راسين سبلا لو عم لان ترانت لو عم كارانتا لنبي دون دون دون دون دون جيم بنير بنكولاتي يوني كارانتا يمت نسك bi mu amee trente-neuf ans mois commencé na di xelmati yëf mais boobu yëf yi ñëwul waaye boobu mu ngi xelmati euh, euh, euh, min baadi taayin wala min sumati suti asurin raakan fi laaxi subi la njooy mi booba yëf yaa koy génne mais booba quarante ans yi des na mois moo tax géntu borom trente-neuf ans yu toftal six mois dégré ak yonent soixante quarante yu ñuy divisé six fois fois ci dégré boobu ngay teg lu tax lu tax yonent yàlla Iisaa ñu yónni ko ci huit ans te yonent yëpp quarante ans bi ko gën te quarante ans lañ ko yónni wa aataynaahu kitaaban sabiyyan wa aataynaahu kitaaban sabiyyan wa anaanan min laddunaa ko wax maa ko nommé ci goos bi mu dee goos Iisaa ngi takk garaat bi à huit yonent yaa ngi ko takk ans waaw lëf la lëf la secret bu rëy parce que yonent yëpp ku ci nekk doomi nit ak nit nga incha doomi nit la ak santaane bi yàlla amul bàyyi bokkuñu yaa jëy nit ëmb gi mooy ku nu eesee na bi maa ngi lay ñaan man yàlla bible tag bi lu mu gaaw gaaw jeex bible bi nettali dëgg dëgg dëgg histoire yi Mariama mi may tuuma waskun fi kitaabi Mariama bul àggalant waxul ko waskun fi kitaabi Mariama waskun fi kitaabi Mariama kañ ak lan isin tabasat min ahliha ma kaanal sarxiya فناديها من تحتها أعدلت واذكر في كتاب مريم إيش انتوت من أهلها ما كان ليش تقول فأرسلنا جاجف إليها رواءنا فتمثل لها بصرا سويا قال إني أوصي قال إني أوصي بالرحمن إن كنت تغيا قال إنما أنا رسول ربك لأحب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بقية قال كذلك قال ربك وواليين ولنجعله آية للناس ورحمة منها وكان أمرا مقديا فعملته فانتبست به مكانا قسيا فأجاءها المقاد من أن يالتني كنت قبلها صعب كنت نشد من يدا فناديها من تحتها ألا تعشني قد جعل ربك تحتك جريا وأسيء إليك بجزء نخلة تساقط عليك رطبا جنيا وكلي وزربي وغري عينا فإما ترينا أحدا من البصر قولي إني نصرت الرحمن صوما فالكلمة اليوم أنسين فأتت به تعمله وقال يا مريم قد جئت شيئا فريا يا أختي أرون ما كان أبوك امرأة سوية ما كانت أمك بقية فأثرت إلي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي سبيا فبلا إيسي وخني إني عبد الله آه. لير بطنت إني عبد الله أتني الكتاب وجاني نبي نجف هنك كن فرقوك تي 40 ans لي يوني نيت لوتاخ نبي صلى الله عليه وسلم نيك لوي المحفوظ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ غي علي شيخ غي مخدم خم نغي لوي المحفوظ لوي المحفوظ مودي مودي مودي تاب table bi yàlla def yi nar a am yépp diw at sàngam lay juddu at sàngam lay dee àjjana la jëm safara la jëm nangam lay am ci wërsëg nangam lay am ci feebar nangam am ci njàqare diw diw réew sàngam mooy lawil mahfos lawil mahfos pare na ñaari téeméeri junne at sa defaruñu maam Adama mais du du lawil mahfos boobu bokkul ak bi alaaji Maalik di julli ci tey siir bi صلي على لويك المحفوظ صلي على لويك المحفوظ ما يموت لو المسؤول لو المحفوظ على جمالك غي سنت يالا مدلل كو خيو لو المحفوظ دور لو المحفوظ خم غكو إيه، إيه، إيه، نكر كو تي وسماي سات بروجي تيغن في لو المحفوظ lawil mahfous bu di ba dégg yàlla nag kitaabu naa sunu téere lawil mahfous a tax ca la ñuy toxale li jëm si ci nabi ragaleel nañ ko fa nabi alquran ay at aadama dóoruñu su alaaji malik wàññeekoo nag di ñaan yàlla ne ko ne ko dollil xiiwal ci lawil mahfous day dal di jaaxle am déet waaw foofu dama bëggoon ñëpp a dégg ko nga xam ne xaaj Malick téere yépp la gëstu tout balaa nga koo xam rek nga nekk ci ël yi ma nekk tey di jéem lu ne nga xool ko daa dem ba xam ne góor gi lépp la xool ndekete nabi moo tudd lawil mahfuus waaw nabi lawil mahfuus lawil mahfuus ba lee ngay dégg boobu suxraa la bu ndaw bi la mais lawil mahfuz bu mag bee mag al kubra huwa nuuru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lawil mahfuz ba la ngay dégg mu ngi commencé fi aadama amee ba bés bi ñuy taxañ suuf mais fi la arrêté mais lawil mahfuz si rasulillahi dafa dem ba àjjana xam ku nekk këram na mu nekkeeg jabar yi mu am ak sàgg surga si mu am ak palaasam bi mu am booba gën a waraat lawil mahfuz bu saa yi bii ngir jël alquran diko jox yonenti mu ngi dale nasatu adama ila nafqi fi sur yom mu fi sur fa sayqa man fi samawati man fi l ardi ila man saa allahu suma nufiqat fi ukhra fa isam xiyaamun yansuruuna fi laqam xam-xawi lawil mahfus ba lay yem rasulullah nak xam-xamam jàll ba passé safara passé sira passé taxawaay bés penc dem aljana dug par buntu kër dugg par keur tokki lal yeb serwiñ ñëpp ترى توك ما توك ما يصلي على لا ما في الأسرة من كل الخلائق بوكي خم جب على جمال يصلي على لو المحفوظ الأشرف سلي على لو المحفوظ بوكي بوكي لو ريمتي نيب تبالي دم waaye mu nattal ko nag ne asrafi min kulli xalaayiq asrafi min kulli xalaayiq géej ngay xam ne doomi Abdoulaye Jalle ñuy wax doomi Amina su Jaay Jalle ñuy wax sunu général bu mag ba tax ñuy wax asrafi min kulli xalaayiq foofu nag nuktatu bu rëy fi tomb bu rëy fi nekk boo xam ne jant bi du ko may Mohamed moomu ali mi xam lépp bi dara laataan lu tax yàlla di ko joxar bi naan ko ma kuntu tudri mal kitaabu wala liman lu tax loolu te mooy lawil mahfuusil asrafi lu tax mu mun a am retard ba balaa jot mandaam am quarante ans kii am ko ci huit ans te mooy sawil lawi lawil mahfuusil asrafi xam nga lu ko tax dudu dañ ko jaaree ci sommet bi waaw ci yoon bi lañ ko jaarale bi muy judd Moustapha xam na liy xew ak li nar a xew ak lu dul xew li bu xewoon na muy xewe xam na liy xew te xewagul xam li xew ba paase xam loo xam ne du xew yemul ci du xew waaye xam na bu xewoon it na muy xewe ñu suspendre xam-xamam boobu di xaar 40 ans parce que bi mu juddoo ba mën a wax dañu futti xam-xam bi fab mbubbum nubuwatu bi sànni mu des di simple personne ba 40 ans bi am ñu doon ko wax ne iqra moo tax ñu ne ko maa kunta tadri mal kitaabu wala al imaanu walakin jàllnaaw noora naadi te mu nekk lamin mahfus ku ci ku ci dul wax ji ma la wax ci 40 ans lañ la yónni moom lu jur mu teel a jot yëfam ku yaayam kuy bàyyam kalimatu alqaha lahu wa anna insa kalimullahi alqaha ala maryama alqaha ala maryama mooy bàyyi isa maryama yaayam looloo tax mu am mu am mën-mëni jot nubuwa gi xam naa an yëpp lu xaalu uruma waaye fa mu la waxe téere yaa ngi naan dafa gën nabi lu tax mu juddu waxta nabi juddu ba am at sida aji malik ne ne fiha takallama bul woy sida aji malik nee na nabi bi muy wax am na dix mois dix mois ci la waxe kii fu mu juddoo la waxe ci saasa ca heure ba lu waral loolu ñu ne inche dañu tuumaal yaayam mu deka mu di ko dàqal tuuma nabi ne kenn tuumaalul yaayam comme yaayam daf ko jur te amul jëkkër mu xalaat ne dinañu tuumaal yaayam mu tëb leen inni abdullahi kat mu yàlla laa bu kenn wax ëllëg lu dul loolu teel naa dégal ses responsabilités ku ci taxaw it yaa ci des waaye xam nga lu mu leen wax mariama cinq minutes la biir wàññi isa ba jibril soppeekoo nit yàlla ne ko demal sa ndaw suba sëli ñeenteel yi façon yi muy bind doomu aadama ma ma complété ko ci moom mooy ko amul ndey ak baay di ak ko am baay te amul ndey di aadama di awwaa ak ko am ndey ak di nun kon dese naa koo xam ne kii day am ndey te doo am baay yéer naa ko ak suuf ndaw sole kenn gën a ko ko yee ko jur Imraan président comité la woon boo xam ne benn église lañu ñu yoroon bu trente membres la mu nekk président ba chacria di vice président ñu bokk kër gu ñu jëlee jabar seen ñaari jabar a bokk ndey ak baay imran bi mu laata judd bi mu laata bi bi bi bi bi mariama laata judd imran faatu na mais yaay ji jabar jabar ji noonu na ko noonu na jëkkër ji inni nasartu li rahman inni nasartu ma fi batni lakum harara bi mu juddoo mu nàmpal ko quatre jours daf ko taxañ ci sàmbet yu rafet dem ca église ba sone ñu génn mu ne seen président bi dee jur kii daf ma bàyyi woon ma ëmb et kon nag seen dooma ko Sakariya ne maa koy jël gars yi na ko déedéet parce que loolu tiyaaba la te duñ la ko bàyyee mu ne d'abord tantam maa koy ci ñu ne moo tax ñu bàyyi ko tante jur Yaxya ah gis nga ne Yaxya jege ñi ak Mariama ñu buddi bul mu gañe ko yóbbu ko kër diko ko nak bu metti tabax ci ko jumaa ji aspantre utalu ko benn escalier mu ngi am selam bo xamné mom rek xam fa mu koy denc su bëggé joxe ravitaillement yéeg ci sel bi dem su noppee nëbbi waye nak mu tok waxtana ak na ndaw ci jaxaluma parce que ndaw ci si ma gëm gi gaaw na lool ni ma koy fekk par heure par jour jaaxal na ginaaw loolu it musuma faa dem di yóbbu repas lu maa ngi ko fekk mu tiim repas te ma rek fay dem noo mu tiim repas repas ba day doon bu amul ci boobu jamono day doon cooroon ma fekk ko muy lekk gerte mbaxal mu muñ ko ba muñ ko muñ ne ko année lekk yeesa yaa yaa mariama année lekk haasa yaa mariama fay jëlee repas bi mu ne mi ni indi laay inna laa yarsaqu man isaa bi xayri isaabi booba Sakariya taawloogul too mu ci cent un jabar ji am quatre vingt alxuraan nag ne comme borom xel mu gudd ndaw si ne na Sakariya ki may fekk fii yàlla la nu ko neex fekkee jaamam dafa wax ne aha ndeke màgget mu la teree am doom comme gerte gu tooy mën na am cooroon màgget mën naa am bon unaalika daa sakria ca la perfito moom it na yàlla yàlla nag ma may doom xale bi juddu ñu yóbboo ko foofu mu am fukki fan mu am mu am mu am ñaar fukki fan ak juróom ñeent ginnaaw bi mu géntee mbërëg feeñu ko dëkkul ak kenn ku jigéen ku mu mun a laaj qu'est-ce que c'est mais xela may ko ni néeg bu sell bii néeg bu sell bii kenn waru ci nekk ak lu salt li mu jënd lu ñuy wax loolu waa di ràbb déedéet di ko def wanag am na tur Hmm? waaw defe na noonu la tudd di mu wérale ko nag mu dem ut ci benn wërale ko ca gannaaw kër ga toog fa di visité boppam ba yëg na set na fa taxasa min doonim ijaaban mu dellu toog weer wi dee weeru dee seen mu fi ña mu defaat na mu defoon ci la suñu borom ne jibril kaay affaire bi mat na nag kaay yëpp waa ji leer gii nar a nekk inché ala nabi yina wa alayhi salaatu wasalaam na mu def ni e, jigéen mënu la gis amul degré yoo xam ne mën naa jàkkaarloog malaayika mu soppeeku nit soppeeku nit ku ñu xam ci réew mi mu di ko siiw nena ñi ñu taqiyan la tuddu am ñu ne taqiyan bi du tudd kinaaya la ba bu ko séenee muy ñëw ci moom rek ci àlla bi te di njegamaat gi ndaw kii di xale góor bu bari doole dafa yuuxu tiit ne ko ange bi rahmani min ka in kunta taqiya maa ngay musli ci yàlla ci yow mi ndéem yaa yaa tudd taqiya bi may dégg ci dëkk bi am na ñu firi noonu ام يفرين دفكن ندم رغال غسبر ان كنت تقيا او سبح منك لا واو جيب لي فاله كو دي واخو دي منك اني او سبح منك ان كنت تقيا بمكو نيو كو انما انا رسول ربك دوما تقيا ندولا لو يبل bi likki ngir ma may la xulaaman doom ji góor sakki yan sakki yan baax na saaki yan baax ah mariama ne ko nag caaxaan nga nar ana yakunu lii xulaam gis nga walam yem sis nii basirun jooju nooy dégg piri mi walam yem sis nii basirun waaw kañ foofu ngay yëg ne eh, eh, ànd ak kurul jëkkër xel ci kon basarun ji bu ko firee mbindeef firee ko jëkkër waaw boo ko firee mbindeef rek kon doom doomi njaaloo mën na ci am ana yëkkul yi na may amee doom wala mu yëpp si ak man basarun jëkkër ngay wax bul wax ne wala mu yëpp si ñuy tëddul man basarun góor wala mu yëpp si ñuy ak man basarun jëkkër na may amee doom waaw moo piri bi lu ko may rek nga wax njaaxum téere yi dañu bëgg balaa nga jotee ak sa soxna si la leew premièrement jublu ci jaamu yàlla bu jublu bi mu jara di ba lasati ngir ut bànneex rek ndax kéemaan yi yàlla indi ci yàddina yépp bi ci gën a gaawee yéegal nit ca yàlla mooy bari di jaxasoog jigéen di sëyeeg moom bu la lew laa wax bu la lew façon ngi naafila yépp naafila tëdd jigéen ci ëpp doole ci yàlla ndax ci la yàlla gën a feeñale mën-mënam ak kattanam bari na jig bari na wali yoo xam ne ci la ñu ubbeekoo ñu bëgg balaa ngaa joteeg sa soxna ngeen waxtaan ne bi daana wax ne bu leen joteeg soxna yi nii bàyyi may dee leen jiital waxtaan ndax waxtaan wi mooy ubbi butiti njureekaay bi ba doom mën a dugg jibril muy doon doon malaaka sànninte nag mariama ay baat baat yooyu baati amour la انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بشر من انكو كسالك قال ربك هو عليين بمو سننتي موم بات يال ديفال كو كاسو بمو يغني بتي تنجوري كاي غو اوبي كنا دا نا كاش لوخول ندي جورم مريم نفكتر نيت نكو بايما من كو اوف مترتري دانو سيمي دوسي إيه، موني موني موني o benn sàmmaa ñëw na leen am na picc yu naaw fële de defe naa ndox fa ne dem naa fa nag waaye xale bu jigéen a fa bu yor liir dem leen seetu ko ñu ñëw ne laa ilaha illallah mariama bett nga nu de yaa mariama yaa uxta aaron maa kaana abuka imraan sabi sa bàyyi dund na ba dee kenn xamulu ko caaxaan wa maa kaana ummika baxiyan say say sa ndey musu dox tànki caaxaan nanga mën a amee doom te amula jëkkër mu ne bu leen ma yedda laaj leen ko ñu ne ko ku juddoogul ah nañuy waxante ku juddoogul koo xam ne kenn faragu ko ndax moos kurusit du ñàkk lay fiñ ne nañuy waxante ku ñu faragul ci la muuse na ñokkat ne ey inni abdullahi atini alkitaaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan aynama kuntu wa wasini bi salaati wa sakkaati wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran asiya li ngeen tal taluma ko xam nga lu ma wax man asalaamu alaykum wuludu wa yawma umutu wa yawma ubasu ayan yàlla ne leer na saalika insi ibnu mariama xam ngeen luy dëgg xawlal xaq la say yam turoona billahi ma kaane lillahi ñeel ma kaane lillahi an yattaxisa waladan subhanahu isa qadam na inna ma yaqul lakum fa yakun xam ngeen luñ dëgg bu ngeen bëggee jàmm wa ana la rabbi wa rabbikum وربكم وربكم وربكم وربكم وربكم وربكم وربكم وربكم وربكم وربكم وربكم ورب